wala boog yow soo defalee nit lu baax moytul mukk di ko waxaat foo tool naan diw maa ko defal nangam am na ñu ciy sax su dul woon man du am nangam waaw loolu nee na moytu ko du ak nite te àndut ak jikko yu rafet tamit waaye nee na yow it bu nit defalee nag bu nit defalee lu baax yow dee ko wax moytu koo fàtte boo nuñ ko di ko wax foo toll it waaye fàtte moom bu ko ko def mukk ci àdduna bu la lebalee teraanga bu ko ndax ñàkk fàtte gi dana la tax di góorgóorlu foo toll ci di jéema def lu baax kon loolu la xikma bi woon tey bu ñu fàtte benn yoon nag di julli ak sëlmal ci sangu sang yi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñam ak i saxaabaam ñi ngi sant ñëpp di gërëm di jéglu wasalaamualeykum wa rahmatullah